yëkkati naa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 bi ak ministre bi coow la moom moo di ndax ñene cour des comptes ngémb wuñ nag ngir xeex ak Moustapha Diop yéene bi ne ma en taxal gi bari na de te coow lii daal dina cay bari lool critique yéene kaay ne ma en tout cas nee na ñàkk teg daan yi daal moo waral lii yëpp nañ leen teg ay daan yu saf sap képp ku ca taxee ñu daal lay teg loxo le soleil yéene kaay ne Serigne Bassirou Gueye day xamle na ni dossier yoo xam ne mës nañ ko dugal yëpp traité nañ ko Seynabou na de ndax juróom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 yokkal taxe yu duun ya nguur ga askan wa fa dëkkee nekk ci misère goo xam ni maar day taali wal fu ne ma deseel ak man ma xamal la ne moom fisc bi daal di nay jéggal bépp entreprise de presse la nga ko yoree loon ci fisc yi waaye nag daal di nay débloqué compte des médias yi ci fanweeri fan turbine yéene kaay ne ma tey kay laa lay leeral képp koo xam ne ci presse nga nekk moom impôt le na ni jéggal na la lépp loo ko yore loon diggante 2020 ba 2022 waaye moom groupe des médias dañ ko xamal ne daañu xoolaat ay yow li ñu yoreel débloqué say compte ci fanweeri fan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 bu confédération africaine bu football di Patrice Motsepe amal nag ab conférence de presse foofu ca euh, Johannesburg ca Afrique du Sud ngir nag waxtaane euh, lépp li nga xam ne soxal na nag équipe Afrique yi nga xam ne dew teewoon nañ nag ci coupe du monde Qatar 2022 bi nga xam ne Argentine moo ko jël ci kaw euh, France Motsepe nag dina dikkaat bu baax a baax ci yenn ci ay questions yoo xam ne dina nag soxal confédération africaine bu football nan lay doxalee en tout cas ci bile d'Afrique dem ba demi-finale mu gis ne nag parcours bi dafay nag wuyoo ci coupe du monde 2026 bi nga xam ne lu toll ci 48 équipes ñoo ciy bokk ci Afrique nag fas na ci am neuf représentants kon gis na ne nag ci compétition yi ñëw Afrique war na gën a mën a yokk taxawaayam ci coupe du monde yi. ñu waxtaanee sa Buenos Aires démb de dalal nañu seen i ni ñuy teeroo buur. waaw ni ñuy teeroo buur kon nag démb la ñu teeroo nag euh, ñooñu ak euh, ñi di Lionel Messi yi nga xam ne jël nañ nag sa ñetteelu euh, coupe du monde démb ci Buenos Aires daanaka ay àdduna millions yi sax ñoo nag ñëwoon ngir nag teeru leen tatagal leen ci nag trophée bi nga xam ne jël nañ ko kon dimanche jàppal ni sax bus bi trajet bi nga xam ne moom la ko tracé loolu mujj fa mujj jaar ndaxte ab hélicoptère moo mujj nag jël si joueurs yi ngir nag ñu wëyal ni mel ndaxte euh, mënuñu woon nag avancé benn yoon en tout cas di fàttali ni euh, ñii di nag euh, Argentine bi nag mooy seen ñetteelu titre gannaaw ba ñu ko jëlee ci atum 1978 ak a tey jële ñoo nekk nag si ñetteelu équipe yi nga xam ne ñoo def li ni mel France ñaari titre la am Italie ak Allemagne ñeenti titre Brésil moo nekk ci kaw am juróomi titre Coupe du Monde CHAN 2023 ñu ngi ci wàccaay li ba léegi Sénégal euh, Maroc jongante xaritoo tey. waaw tey bu 16h jotee euh, foofu ci euh, complexe Mohamed VI nekk ci Rabat Sénégal nag seen ci laale ak naataangoom bi di Maroc lépp rek jublu ci wàccaay CHAN bi nga xam ne moom lañ jagleel joueurs yi nga xam ne ci yenn championnat la ñuy football ñu fas yéene ko amal kon ci atum 2023 foofu ci Algérie le 13 janvier la ba le 4 février. jàppale ne sax bi mooy ñaareelu jongante xaritoo bi nga xam ne Sénégal amal na ko kon jàppal ne Sénégal samedi bi ñu gën a joroon naa def match nul seen diggante ak Algérie ñaar ñaar la ñu defoon Sénégal nag ci CHAN bi ci poule B bi la nekk fas yéene ci ànd ak République démocratique bu Congo ni ki noonu Côte d'Ivoire Ouganda nag dafa mujje génn ci boobule compétition bokkoon poul ak Sénégal ñoom daal bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu président bu football bi dafa gis ne daal waxtu wi nag dañoo am ay jamono euh, jafe-jafe finance moo tax li ne mel mujj ñoo bokk ci bile ak coupe euh, bu ñu jagleel wàllum CHAN. maire bu Touba moom lu mu wax. waaw maire bu Touba Toul daal gis na nag faaw ñu gën a nag dooleel euh, collectivité territoriales yi ngir nag ñoom tamit ñu mën a am ay nag euh, jongoon euh, infrastructure yu mucc ayib muy stade wala yeneen nak infrastructure yoo xam ne dina nag mën a gën a jëmal sport du Sénégal en tout cas li ni mel nag moo ngi ko yëkkati gannaaw ba mu doon teewee final gu doxoon nag ci diggante ASC gi ak ASC Laman Kanigi sax moo ko mujjee daan ñetti bal ci dara ñu teewlu kon Ahmed Dieye ak kii di Mbaye Tall ak sport de manière générale place bi mu occupé ci ndaw ñi ak ci àdduna bi Sénégal xam loolu di ci liggéey liggéey bu am solo euh, ba tax na loolu liggéey boobu état bi di def ñun collectivité territoriale communes yi dañ ko war di def au niveau local pour que football bi gën a soqale ku gën a développé loolu moo tax équipe municipale bi bi mu ñëwee xam na ne train stade Touba bëri na ay jafe-jafe war na am pelouse war na am éclairage bu gën a ñoŋ war na am turbine ba tax na ñu ngi ciy liggéey ak ay partenaires pour que balaa nawetaanu déwén ci kàttanu yàlla bu ko yàlla dogalee ñu defar ko incha allah rabbi. Ahmed Dieye nekk maire bu euh, Touba Toul euh, di jaajëfal tamit le professeur ah Malick Gadiaga le grand monteur. Malick Gadiaga laay le grand monteur moo fi nekk fajar gi. waaw sama waa kon ñu joxante di daje incha allah 12 ci Zik FM ak Birame Diagne Touré.